asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu mbokk yi nuy seetaan ci seen 28 pro ñuy ànd ak yéen ci jataay boo xamante nii dañu ciy laabirante di ci waxtaane lu jëm ci seen wàllu diine ak lu jëm ci wàllu social ak lépp loo xamante ni nit ki dina ci mën a dund dund gu yaatu gu féex goo xamante nii ci jàmm rek lay nekk ñu fas yéene lépp ñu koy def ay tomb alxames ji jot 20 heures 30 jàpp 21 heures incha allah rabbi ñuy ànd ak yéen fii mbokk yéen ñu ni seetaan dara lu leen ump ci seen seen bi ñuy wax 28 pro mbokk ñu fàttali waxtu bi nga xam ne moom lay alxamis vingt heures trente lañ koy amale fii waxtu wu nekk fii ci 28 pro ñu jox leen daje ci alxamis bi di ñëw wasalaamaaleykum wa rahmatullah